njiitu réew mi di Macky Sall nee na Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaara dafa am loo xam ne moo ñu lëkkale moo ñu boole te loolee kenn ku nekk war na see dox tànki jàmm njiitu réew mi di président Macky Sall ne dégg naa déglu naa rawatina ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi te li taax ñoom ñëpp ñu wàcc ci mbedd mi lenn waralu ko lu dul coronavirus bi nga xamante ne moo indi ay jafe-jafe ci adduna bi indi ay jafe-jafe ci biir réewum Sénégal waaye ndaw ñeek jàmbat yi nga xam ne ñoo ngi koy jàmbat loole lépp comprendre naa ko te ko jéem a nga xam ne moom la gën a gaawee bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci lu jëm ci wàllum ndaw ñi ñu ko daal di xoolaat lu jëm ci wàllum couvre-feu bi président Macky Sall léegi nee na minuit la jàpp cinq heures du matin yéenekaay gi de La Tribune nee na njiitul Pastef di Ousmane Sonko ma ngi ci ab contrôle judiciaire waaye tamit njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi ci sous contrôle du peuple jamono ji maanaam askan wi ñoom seen bopp ñooy contrôler ki nga xam ne mooy Macky Sall askan wi ñoom moomee vent yéenekaay gi nee na mobilisation bi nga xamante ni démb gis nañu ko mu topp Ousmane Sonko loolee kenn musu ko gis ci Sénégal yéenekaay gi Libération nee na démb Ousmane Sonko bi mu jàkkaarloo ak doyen de justice Samba Samba Sall Ousmane Sonko wax na ko lu leer nee na ko Samba Sall man awma confiance ci yow Ousmane Sonko loolee la wax Samba Sall na ko doyen de Suisse bam na ko naam mu ne ko man awma confiance ci yow di ko déglu Ousmane Sonko na ko awma confiance ci li nga xam ne mooy justice bi ndax am na ay nit ñoo xamante ni ay corps de contrôle ñoo leen joxor bi baaraamu tuuma daal leen ci ay tuuxi doon ak njuum tekki tojaange yoo xam ne def nañu ko te kenn topp leen Samba Sall na ko bul wax ci dossier bi Ousmane Sonko na ko dossier ba mu di ñu xibaar naan ñu en tout cas démb mbooloo mi nga xam ne ñoo dagg topp Ousmane Sonko bëri na lool moom njiitul Pastef li mi nga xamante ni nag moom lay tuumaal njiitu réew mi di Macky Sall maanaam mooy haute trahison Ousmane Sonko nee na daal ne moo gën moom la Macky Sall def ndax mboolem loo xamante ni Macky Sall waxoon na ko aw askanam lépp daf koo trahir moo tax nag journal bii di réew mi quotidien nee na Ousmane Sonko dafa bëgg yóbbu Macky Sall fi nga xam ne maanaam mooy Cour pénale internationale nee ma CPI ndax nag nga xamante ni ñoo faatu Ousmane Sonko nee na lépp Macky Sall la yéen a kaay gi nee na njiitul Pastef nee na bi ci boppa mooy doog di commencé te jamono ji amul kenn kenn kenn koo xamante ni mën naa téye li nga xam ne mooy révolution bi man sax mënu ma koo téye ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi li ma leen di digal mooy bu leen dem palais di jéem a déloger Macky mbir mi am na nu ñu koy encadré danañu jot ci réew mi te nag du damm sagar du xeeñ ba tey ci biir journal bi de L'As ak Vox Populi ak enquête ak l'Observateur nee na njiitul Pastef di Ousmane Sonko teg na li nga xam ne mooy ab agenda agenda bu dëgër këcc ndax nee na njiitu mi di Macky Sall état bu Sénégal na maanaam ndàmp ñi nga xamante xamante ni seen i mbokk dafa faatu si jàmmarloo bi faj ñi nga xamante ñoo ci am ay gaañu-gaañu génn ñi nga mu delloo seen àq ak seen yelleef ubbi ab enquête ci tout tànk yi nga xam ñoo faatu ci manifestation yi ba pare organiser élection yoo xam ne yu jub kocc lay doon yéen a kaay gi na Ousmane Sonko koy jamono ji nag li nga xamante ni moom lay sàkku maanaam mooy démission Macky Sall ñu laaj ko Ousmane Sonko ne lu jëm ci wàllum gouvernement d'union nationale loolu nag bu ko ci njiitul Pastef di Ousmane Sonko moom nag nee na complot bi Macky Sall la ak Félix Antoine Abdoulaye Diome ak maître Malick Sall ak Bassirou Gueye procureur yéen a kaay gi dañu ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko ni ki démb waat na waat na ci billaahi wa taalaahi lii nga xamante ni moom la ñu koy tuumaal amul lenn loo xamante ni nekk na ci dëgg ndax nee na moom su xamoon na dëgg la du nangu kenn maanaam di si xureeku ba si ñàkk bakkanam ndax kon boo liggéey mën na koo layoo ak yàlla buur bi yéen a kaay gi di Dakar Times nee nag jamono ji mbir mi leer na Ousmane Sonko mooy leader incontestable de l'opposition sénégalaise entreprise loole leer na nañ yéen a kaay di Dakar Times nee na diiwaanu Casamance ñoom sax ni nga xam ne moom la ñuy woowe Ousmane Sonko mooy esamay maanaam gaynde gi yéen a kaay gi na ñi nga xam na ñooy force politique beeg société civile bi ñëpp jamono ji ñoo ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko maître Ciré Clédor Ly avocat Ousmane Sonko nee na nag ñi nga xam ne ñooy askan wi ñoo libere njiitul Pastef yéen a kaay gi di li quotidien ñu xëy fekk fa waa Amnesty International ñoom nag ñoo ngi sàkku ab enquête ñu ko ci nga xam ne ñoo faatu maanaam ci jàppante yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee nit faatu nañu ci am na lu toll si juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo ne am nañu si ay gaañu-gaañu yéen a kaay gii di li ko di jee nee na sénégal yi nga xam ne bitim réew nee ma diaspora bi mere nañu lool lool lool lool ki nga xam ne mooy njiit réew mi di Macky Sall moo taxit yàkk nañu ko musiba ak mbelengaan yéen a kaay gii la turbine nee na démb am na benn xale boo xam xamante ni Muudu Njaay la tudd ñàkk na bakkanam ci fi nga xam ne mooy Parcelles Assainies yéen a kaay gii di libération bi ci digg bi ma ngi a kaay gi nee na lu a commissariat bu parcelle démb gars dañu ko bëggoon a taala yéen a kaay gi mu xëy di ñu xibaar moom tim naan ñu njiitul Pastef démb daan nay woon ñi nga xam ne ñooy waa MFDC ñu daal di li nga xam ne mooy arme yi yéen a kaay gi di ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew di ministre maître Malick Sall boo moytuwulee rek dina merloo ñi nga xam ne ñooy mbër yi ndax maître Malick Sall dañu ko invité ci France 24 bi ñu